boo ko gisee rek. voilà donc tey jii nii bu président bi waxee da ngeen ma koy ñaan ci njëkk. mais yow boobu loo en fait man li ma ko gisee. qu'est-ce que man li ma ko gisee sérieusement. waaw j'ai compris que dans si si waa waa waa nguur gi. Mm-hmm. il est clair que Macky il a le droit à se représenter. ok parce que bu fekkente ne yow bu y depuis deux trois ans ñi ngi ñi ngi utiliser ay. ay termes yoo xamante ne c'est c'est assez bizarre parce que j'ai suivi reportage bi enfin documenté wala bokk interview bu Macky euh, président Macky Sall bi mu ne euh, du ma wax oui du ma wax non parce que su ma nee oui les gens vont plus travailler su ma nee non Euh, enfin mu jox ñu benn explication boo xamante ne man dalul sama xel dara dara pour pour lan parce que on est dans un pays boo xamante ne dañu am constitution on est dans un pays boo xamante dafa am dafa dañ ko tënk quoi maanaam lu ñu li ñu régir dañ ko tënk. léegi hmm. comment ça se fait que comment ça se fait que benn wax boobu man su ma tollee fii c'est comme cas bi rek su ma tollee fii l'avant laay lire su ma tollee fële midi laay lire. Hmm. la même phrase nul n'a le droit de se de faire deux mandats consécutifs. y en a te dire non avant loolu am na lu ko jiitu. léegi ce qui veut dire que day indi coow ci loolu et depuis deux ou trois ans président Macky Sall bu mus wax ba nii nii nii passé il l'a dit de manière très implicite très claire mm-hmm. ku bëgg mandat daf ma koy ñaan c'est comme si moom moo détenir oon moo ko téye ci loxoom c'est-à-dire que moom mooy décider kan lay may mandat ou pas c'est ce que ça signifie ça signifie que moom su fekkante ne c'est quelqu'un qui arbitre le match c'est comme nga ne ku bëgg yow nekk arbitre de nga ne yow ku bëgg victoire dama koy ñaan donc ça veut dire que du sa jeu mooy tax nga gagné mais danga may ñaan ci njekk ma may la victoire noo ko wax ay ay mbër noo ñëw si terrain bi ne ku bëgg victoire dama koy ñaan mm-hmm. normalement que le meilleur gagne donc man li mu ko li ma ko comprendre et loolu si clair te ñoom ñëpp si soo seetloo bu baax euh, de la manière dont ni nguur gi di doxale am nañu yaqin que ni président bi am na droit présenter waat. beneen mandat. ñoom loolu noonu dañ koy wax même su fekkente président Macky Sall waxu ko lui-même waxu ko mais ñëpp ñu ko wër ñëpp. la daanaka sur plateau yi loolu la ñuy expliquer.